Je sama ñëw fii ci Saint-Louis andak ak ñi ma gouverneur de la région de Saint-Louis préfet sous-préfet yi directeur général bu ADM ak équipe de l'ADM, andak cabinet bi suivre euh, pour le compte du ministère des collectivités territoriales du développement de l'aménagement des territoires projet yu Nous avons fait ñaar def Ce ñaari site bu ci njëkk mooy euh, loolu nga xam dañ euh, ci président Macky Sall ndax est ñëwoon fii président Macron

li ñuy récupérer ci place bi bare na bare bu mucc mucc ayib gis nañu ni ñi napp ñi ngi teg seen gal à côté gis nañu ni place bi set na rafet na euh wax dëgg yàlla loolu am nañ ci mbégte euh te xam nañ ni président Macky Sall ci bu ko agenda maye bu ñëwee fii di def ay inauguration dina ci boole waale digg boobu parce que lu am solo la woon ci askanu get ndar euh ñaa projet boobu nag fukki milliards dugg ci liggéey nañ ko bu mucc ayib te li ci am solo mooy biñ koy liggéey dafa tombeek sax Covid bi am mais malgré cela wax dëgg yàlla ñoom entreprise yi liggéey nañu ak fulla ak fayda parce que xam nañ importance bi mu am sous la supervision du directeur général de l'ADM ak son équipe ba ñu am euh, lu mel noonu ñaareelu projet bi bu am solo boo xam ne sax dafa am liaison ak bu njëkk bi mooy ñooñu géej gi nangu woon seeni kër président Macky Sall dafa décider tabaxal leen ay kër yu mucc ay fii ci Jógob lu war a mat juróomi téeméeri kër yoo xam ni yu mucc ayib lay doon yenn yi R plus 1 lay doon yeneen yi doon yenn ay kër yu mucc ayib te li ci am solo ci projet bi mooy kenn du fay dara loolu laaj naa ko ñaari yoon <laughs> directeur général bu ADEM mu ne ma waaw monsieur le ministre wax dëgg yàlla li président Macky Sall def mooy nañ leen jox kër yi clé en main loolu c'est extraordinaire juróomi téeméeri kër ci site bu mel nii nga xam ni li ci war yëpp def nañ ko voirie bi day am day am assainissement

Jurum ñeen eh, fukki milliards ak juroom bu pare te loolu eh, sénégal eh, ci digal président macky sall ñi ngi ko lëkkaloo ak banque mondiale projet bu njëkk bi ppcs afd lañ lëkkaloo donc donc ci turu président macky sall ñi ngi ñi ngi gërëm tamit ñooñu nga xam ne banque mondiale ak afd ci ni ni ñuy jàppale nguuru sénégal pour ñu mën def projet mel noonu